bund xataala journal bi nee na liggéeykat yi nekk ci wàllu wér gi yaram gi bu passé mer mi nga xam ne mer nañu ko ak grève bi nga xam ne si la nekk démb tamit amuloon nañu li nga xam ne mooy ab sitana yéene kaay gi ne ne sage yi jamono ji nag ñoom ti mer nañu lool sage-femme yi ci Sénégal mer nañu Abdoulaye Diouf Sarr ndax nag nee nañu tay nañ damm nañ dee nañ tey jii sax maanaam journée sans maternité la tey ji nag ñi nga xam ne ñooy di ndax nag ni ki démb ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ci Louga bëri ay jigéen ñoo xam ne dañu doon ñëw ngir nag muccoo maanaam ngir am doom waaye nag sage-femme dañoo lànk kandaare bañ a leen a réewle yéen a kaay gi du l'Observateur nee na démb bëri ñoo xam ne dañoo ñëwoon ci hôpital Amadou Sakhir ñu daal leen di dàq waaye nag dañu leen a mujjee évacuer fi nga xam ne mooy Saint-Louis ndax nag région bu Louga bi yépp sage-femme yi liggéeyuñ tey ji yéen a ni ki démb ci conseil des ministres bi daan sant Abdoulaye Diouf Sarr ngir nag mu yeggaleel ko audit bi nga xam ne commencé woon nañ ko ci lu jëm ci wàllu wér yaram gi ci réew mi gàllankoor am na ci santé bi yéene kaay gi di évidence nee na Sénégal jamono ji dafa daal di bekkoor Sénégal ci bekkoor la nekk bu passé nag carburant bi nga xam ne moom la def ci avion yi te jamono ji kenn gisu ko ci réew mi bu passé loolu nag Sénégal ma ci ay jafe-jafe ndax a gis dafa ba maara détaillé Sénégal tuumuranke jamono ji jéggi na dayo Mali gi nga xam ne sax dañu ko embargo Mali dundul jafe-jafe yu mel nii journal bi nee na li nga xam ne moo ko waral nag mooy yorin wu bon wi nga xam ne yore nañ ko secteur bii yéen a kaay gi di wal fajiri xëy ñu xibara naan ñu essence manqué na jamono ji bëri na station yoo xam ne dañoo tëj rawatina fi nga xam ne mooy ca diiwaanu Fuuta yéen a kaay gi di lay ko xëy duñu xibaar naan ñu Serigne Diagne bu Dakar Actu daan nay porte plainte Serigne bu pa nee na Serigne Diagne li tax mu yóbbu Serigne bu fa mbaxana doonee benn nee na Serigne bu koy fenal daf koy ba pare dafay wër di yàq ma teg si nag di ko menacé yéen kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu élection député yi nga xam ne moom la ñu dëg ma yomb ci Macky Sall ñi nga xam ne ñooy waa PDS nee ma ñoom Abdoulaye Wade ñoom nag woote li nga xam ne mooy ab manifestation yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na ñoom Abdoulaye nee nañu nag askanu Sénégal gi war a génn wàcc si mbedd mi jàkkaarloo ak Macky Sall ci giraawaali yéeg njombe yi nga xam ne moom la Macky Sall nekk ci réew mi waaye nañu élection député yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la doxalin wu ñaaw la si Macky Sall doxalee te loole nag nag ay njombee ki giraawaali la yoo xam ne jot na jamono ji ñu daal di koy arrêté yéene kaay gi du l'observateur xëy dañu xibara nañu nag vote sanction boo muy duulee dina am ci benn bokk yaakaar ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ndax nag frustration bi moo bëri yéene kaay gi ne na malaise moo am ci biir benn bokk yaakaar mer mi nga xam ne nag ndaw ñi mere nañ ko Macky Sall maara de tali élection député yi du yomb ci ndaw ñoo xam ne dañoo ndaw ñu bare bare bari seen yaakaar jamono ji Sall biñ koy ci bopp réewum Sénégal am nañ ñoo xam ne amoon nañu yaakaar waaye nag jamono ji yaakaar tas na yéene kaay gi délibération ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias nee ma maire bu Ndakaaru Barthélémy Dias nee na nag jamono ji opposition bi jege nañ lool cohabitation ak Macky Sall ci assemblée nationale yéene kaay gi di 24 heures ak las ñu nag fekk fa ñi nga xam ne ay handicapé diplômé lañu ñoom nag mer nañu ba maara de yi li koy firndeel mooy démb dañu doon marche maanaam ñoo woon ca place de l'Obélisque ñoom nag li nga xam ne moo leen naqare nag dañoo jàng ba am seeni lijaasa ñu war leen a rëkk recruter ci fonction publique te kenn recruter wu leen nag loolee moo tax handicapé yi démb nag yàq nañu musiba mbelengaan Macky Sall ndax ñoom nee na ñu daal dafa mel ni boole wuñu leen nag ci réew mi yéene kaay gi nee na saaga yi ak xasaata yi ak njombe yi bëri na lool ci ëttu taskatu xabaar yi waaye nag rawatina réseaux sociaux yi yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu nag Sénégal jamono ji nag dafa daal di tëmb ci ay ñaawteef yoo xam ne saa yi ak ci réseaux sociaux yi yéene kaay gi di Vox Populi xëy amatul ci réew la fin de la vie privée journal bi nee na réseaux sociaux yi maanaam yàq dara tooñ fenal nit moo bëri lool ci réseaux sociaux yi maanaam toroxal gi nga xam ne nag ñenn ñi ñoo koy toroxal doomu aadama yi maanaam di wuññi seen nag sutura ci réseaux sociaux yi loole nag mën naa nit yéen a gi di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu Balla Gaye numéro 2 ak Sa Thiès ñoom ñaar kenn ku nekk am na combat waaye nag Balla Gaye Gris Bordeaux lay jàmmarloo la Sa Thiès yi na ñaari doomu Double